la science d'aujourd'hui nous a permis de noter des, axes de renforcement, d'amélioration. et je pense que c'est l'occasion pour nous de remercier le Forum civil, mais inviter nos autres collègues également à faire de la RSE une réalité. Parce que les investisseurs n'ont que leur intérêt. Mais si nous avons le patriotisme de sauvegarder nos intérêts, mettre devant l'intérêt de nos administrés, ils vont nous suivre dans nos intérêts et pas dans leurs intérêts. ñu ëpp ci jigéen ñi ŋànk commune bi muy ay conseillers municipaux conseillère municipal ak ay responsable de groupement de femmes waaye jigéen ñoo xam ne dañuy yëngatu ci yeneen secteurs yi ci wàllu wérgu yaram ñi yëngatu ci carrière ci euh, teewaayu forum civil te Birahim sekk jiite ko euh, muy bànqaas bi nga xam ne moo fi toogal Transparency International ànd ak sunu rax Samba Ñing pour euh, taxawal kuréel bi ñuy wax jigéen ci gox ak gox-goxaan yi nga xam ne dañu am ngu Ngoundiane nag ku ko xam-xam ko ci wàllu carrière ñu gis ne jigéen ñi war nañ mën a gis seen bopp ci koom bi nga xam ne mooy jóge ci carrière yi donc solo daje bi ci initiative forum civil mooy taxawal kuréel boo xam ne au niveau national dafay ëmb jigéen ñëpp ba ñu gën a gis seen bopp ci koom bi génne ci wàllu carrière euh, euh, loolu nag pour ñu def ko foo ñu def ko ci gox goxaan yi tey nag Ngoundiane moo aye woon pour daje ak euh, délégation forome civil mais prier euh, kuréel yooyu nga xam ne moom la tànn lu mat euh, ñeent fukki jigéen ak ay xale yoo xam ne ñu représenté association yi pour waxtaane ci loolu njàngat liñ ci jël nag mooy jigéenu Ngoundiane sawar nañ ci loolu parce que lépp loo xam ne dafay yokk taxawaayu jigéen de taxaw jigéen mën a demal boppam

waaye bëgg nañ ñu comp ci loolu jagleel ko directement jigéen ñi nga xam ne dootul jaar ci mairie dootul jaar ci fonds minier waaye dañ koy jagleel fonds boo xam ne dañ koy taxawal ngir jigéen ñi pour gën a yokk seen taxawaay pour gën a yokk seen euh, en tout cas euh, promotion ba véritablement ni ñu taxawee askan wi ñu gën ko taxawee parce que jigéen ñi en définitive ñoom ñoo yore société bi RSE moom bu ñu waxee dëgg amul benn texte boo xam ne euh, wax na lim sàngam la ñuy joxe waaye ci taxawaayu commune ak ña ko jiite mel na ni war nañu mën a doxal doxalin boo xam ne ku bëgg dara foofu da ngay jaar obligatoirement ci RSE loolu moo tax ñaareelu pàcc waxtaan bi tey ci kuréel ci ci ci vole boobu la woon parce que fii ci ngunjaan am na loo xam ne duñ ko négocier bo fekkee da nga bëgg a ñëw euh, taxawal fi kom kom mo xam carrière la wala station d'essence la wala toll boy bay dafa am tarif yo xamné ne ci walu frais de bornage dañ ko délibéré nga xamné ne loolu kenn du ko discuter li ñuy discuter kay moy lang cey tek teg loolu mooy RSE te loolu ci euh expérience bi woné na né bu ñu taxawee fi ñu war taxaw jiital intérêt askan wi investisseurs yi danañ ñu fekk ci la bëgg am na investisseurs yoo ne. fu nekk jaar nañ fa ba ci kaw ci réew mi bëgg ñu jaay doole ñu taxaw fa ñu taxaw ba ñu ñàkkee pexe dañu fekk ci lu ñu bëgg ñu yaakaar ne collectivité Sénégal yépp bu ñu defee noonu euh, modèle bi mën nañ ko partager euh, mu gën a yaatu yaakaar naa ne suñu gox yi ak gox-goxaan yi seen melokaan dana changer parce que ña fa nekk di fa diir alal bi mën nañ ko yokk parce que li ñu mën du sama poche la Ngoundiane yàgg na am carrière waaye tey jii nii Ngoundiane amatul problème mu yoon amatul problème mu ndox amatul problème mu courant amatul problème mu post de santé amatul problème mu lekkool loolu lu ko mën mooy koom bi nga xam ne daf fi doon génne te amuñ ci woon njariñ lu bari mais liñ ci xayma ci wàllu RSE ça dépasse le milliard wax deug yalla won nañ chiffre à l'appui entreprise par entreprise ku ci nek ba ci station d'essence bi gëna touti limu duggal ci RSE def nañ ko ci document té ñëpp d'accord nañ né lolu lu am la sans compter ndimbal li nga xamné dañ dañu koy jàppale ci walu jafé jafé aduna Covid beeg poste de santé yeeg yi nga xam véritablement soxla askan wi la lolu véritablement ñing ngi ci sant yàlla euh, benn jëf nak mënul mat à 100% solo waxtaan bi tey mooy biñ ko exposé taataan xalaatu nit ñi taataan xalaatu forum civil indil nañu seen xalaat dinañ ko gën a améliorer waaye bëgg surtout ñeneen ñi profito ci pour partager suñu expérience. au niveau de Ngoundiane dans le cadre de la RSE il a pu la commune de Ngoundiane a pu bénéficier de plusieurs millions différentes entreprises euh, mais nous nous pensons nous pensons que c'est assez c'est assez minime vu les chiffres d'affaires qui sont souvent produits. Euh, euh, par, les, entreprises au niveau de, de, de façon générale. Euh, c'est pourquoi nous allons approfondir la recherche et les données qu'il nous a données. Et là, comme je dis encore une fois, nous le remercions des données qu'il nous a procurées sur l'ensemble des RSC e qu'il a eu à recevoir. Il appartient au Forum Sibéna de faire le travail, mais également d'aller vers les entreprises pour leur, quand même leur demander d'augmenter de, les montants qu'ils octroient aux collectivités locales, surtout en fonction des besoins que déterminent les collectivités elles-mêmes liñ fi dajal fii tey mooy euh, daje ak mairie commune de Ngoundiane euh, ci njiitalu euh, le maire Mbaye Dione di ko remercier ci exercice bi nga xam ne bari na maire yoo xam ne ñemewuñu ko mooy lan wax ñëw devant ci askan wi wax lan lañ jot ci xaalis ci ci wàllu RSE comme ni mu ko waxee rek ñun dëkkuñu Ngoundiane les population Ngoundiane ñoo mën a wax ndax li mu wax ne def na ko fi ndax def na ko fi te yàlla yàlla def na en tout cas liñ gis ci salle bi amuñ benn objection ne moom li mu wax ne lii la def ak xaalis bi nga xam ne recevoir na ko parce que war na ne chiffre à la à l'appui ne lii la léegi la jot te gisuma benn contestation ci biir salle bi en tout cas ñi ñu invité donc agis boobu noonu dañ koy continuer ci plateforme bi nga xam ne dañ ko bëgg a mettre en place fii ci Ngoundiane li ñuy wax femme des collectivités minières te ci ndimbalam ak ci njàppanalam donc digg nañ ko formation ci jigéen ñooñu ci wàllu fonds minier wàllu contenu local ak ñeneen dig nañ également gën rendre perfectible gëna joyanti euh, wal RSC e bi manam comité yi nga xamne war nañ ko gérer euh, ak xaalis bi nga xam entreprise ni koy dugal parce que ñu japp nañ ne euh, lim na jot nako ci xaalis entreprise bi mën nañ def lu ko te mën nañ am nañ possibilité également def lu ko boo xoolee chiffre d'affaires yi nga xam ne ñu ngi koy def donc loolu liggéey forum civil la dina ci bàyyi dina ci bàyyi waaram euh, indi ko njàppandalam également pour mën am xaalis su bari ci entreprise yooyu noonu. voilà jërëjëf.